tey su ma doon def ay lutteurs ñooñu laa koy def muy soq ak euh, mobile 2 bu Grand Yoff wax dëgg yàlla ñooñu ci làmb lañ daan tasee nii amuñu benn connaissance wax dëgg yàlla gis naa leen ñu def acte boo xamante ni acte bu noble la acte boo xamante ne nii non laal na ma waa wax dëgg yàlla parce que loolu noonu ñu def mën naa ni mënoon na leen cee bañ a fekk mais tey am na ñeneen ñoo xamante ni ñoo leen gënoon a féete côté boobu noonu pour ñu def ko. ñoom nit liñ ci def maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ko quoi suñ borom fay leen seen xol ci acte bu nice bi ñu def. waaw taxawu nañ la wala seet nañ la wala. waaw gis naa benn interview wax dëgg yàlla ñuy taxaw di ma kaasal xama di ma laajal ndimbal ci loo xamante ni parce que soq tey boo ko doon indi sama kër xamu fi. mobile tamit la même chose amaana deretu jullit moom moo leen yëngal rek yaa ngi dégg deretu jullit moom moo leen yëngal ba tax na ñoom xam nga ñu ciy def seen kéemtulaay kàttan mais amoon na yeneen champion yoo xamante ni maanaam ñoo leen waroon a jiitu ci action sociale boobu noonu. mais tey ñoom ñi ngi wane ne ñoom ay champion lañ parce que champion du ay bëri ndam rek mais esprit la ko wax dëgg yàlla te wane nañ loolu.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 yoonu yàlla a tur yàlla bi ñu ko liggéeyee